تقرى إلى الله وحده yanaalul maqaama la raja ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañ ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne min wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidil awwalin wal axirin wa ala alihi wa ashaabina wa ala yaa himmatu cheikh afdul lana bi haadal mahdari wal taarif bi nadaratin taati lana wa safar ma baad سلام الله تنزل لك عن سرا وروحا في محبتكم تغلب وجسما لا يفارقكم دواما وقلبا من محبتكم يذوب ربي بتاها وبابي غير يسر لنا من كل علم خيرا ونبيل الفؤاد وجل سيرا في الله حتى لا نهي بغيره بك جليلين بك إيمان بك إخسان ينوي نب زيار نب لجوه نب سنوى چواي ديو حاني نيوان ننسان درسو يوري دينه عندك تلب مقبين خمنا موي فارغ xam ne muy télé boo xam ne diine rek moo leen ñor xam ne nu ma ko waxee temps rek duñ dañ kon di leen ñaana yàlla yal na yàlla gën leen yokk gën leen garante yal na yàlla def télé bi yal na dem ba nekk télé xam ne àddina yëpp ñu moom la ñuy déglu mu nekk international te incha allah loolu yàlla dana ko def képp ku fay yëngatu rek di fa liggéey yal yàlla garante la barkeel la may la si waruwaay yi méng jamono ak dëkkuwaay yi si barki yéen sallallahu alayhi balaa ñuy def dara nag ci darsu bi dañuy ñaanalaat suñu mbokk jullit yooyu nga xam ne ñoo nekk sa Palestine comme nuñ ko daan defee sec vendredi nu ma ko daan waxee rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne man lam yaxtam bi amri muminin fa laysa wala man lam yaxtam bi amri muslimin fa laysa minhum koo xam ne yow mbir jullit ñi yow hit hitalul la kooku ñëwuñ laa wax dooy jullit de waaye daal yow daal mënuñ laa considérer na yow si jullit yi nga ndax jullit dëgg-dëgg mooy lu okk sa moromu jullit nga yëg ko moo tax yonent ba muy misaal jullit ak mbokkam dafa waxoon ne na mel ni jëmm nga xam ne loxo bu méttee donte nag bët dana ko yëg ndax loxo bu métti bët lu mu si jooyee kon kanaa bët dafa waaye dafa nekk benn moo tax loxo moo métti métti mooy maanaam jooy tànk moo métti bët jooy kon bët seytaane la moo ko nopp bu méttee bët jooy waaye loolu yëpp na lu waral loolu mooy bët dafa mën a sot moo tax lool laal si jëmm ji rek moom dana manifesté woon ne laal nga loo xam ne si man la bokk kon moo tax julli ñëpp bu ñu meleen noonu rek yaakaar naa ne société bi dana gën a baax nu ko sëriñ boo xewoon fa al tajmal ayyaama xawoon muhammadin ala nahjihi min duni shakki wa miryati kañ la yàlla di dajale julli ñu ñu nekk benn nga xam ne dañuy xàccandoor di doorandoor di bokk benn kàddu di bokk tamit bàyyeendoo loo buñ ko defoon yàlla dimbali yal yàlla gën dimbale waa Palestine si barke yéen sallallahu alayhi wa seen noonu yu ba ñu leen song yal yàlla damm leen damul seen raaya comme noonu demee woon raaya ñu bon ñoo nga xam ne ñoo taxawoon pour faari yéen sallallahu alayhi wa sallam muy yahuud yeeg ñu bon ña waaw suñu dar su yor yooyu diina comme niñ ko daan defee ajuma bu jot muy chaque vendredi tey nag ñëwaat neen comme niñ ko daan defee tomb dañoo bëgg ajuma bu na rek ñu dee benn tomb bi passé jëloon nañ lu ñuy wax tayamamu mooy tiim xam ne alquran moo ko yaxaloon comme nu ma ko waxee woon nit ki bu amul ndox na tiim fa in lam yajid maa fa tayammamu sa'idan tayyiban loolu alquran waxoon tey nag ndax nit ki bu fekkee laab nga si ndax laab ñetti façon la mooy laab si sa jëmm laab si sa yére laab tamit si sa yaram kon jaam bi boo laabee si ndox nga jàpp ba set wala nga sangu ba set lu ci des mooy taxaw julli kon te laab ñaar moo am imma nga laab si ndox wala nga laab si suuf te waxoon naa ne laab si suuf na ko nit ñu bàyyi xel xam ne loolu yàlla moo ko digal bu fekkee amu leen ndox na ngeen tiim waaye dar su passé leeral naa ne du question da ñàkk ndox rek tiim déedéet am na question yu ñu la tegal ay condition condition yooyu bu dajee si yow si ngay mën a tiim comme nu ma ko waxee woon bu fekkee kër gi amul ndox sa appartement xoolal ko ko jàkkaarloo bu amee mu may la wala ba sa dëkkandoo sax da koy xool bu fekkee sax dalaa nangoo lebal le na ko indi lebal ma su rëb na fa amee ma fay la gutu ndox kon moo tax dar su boobu lañ jàngoon bi passé comme a jàpp ne jàng neen tiim te tiim day taxawaale njàpp kon njàpp lañ jàngagut kon tey tomb buñ jël mooy jàpp jàpp nag mooy loo xam ne nit ki balaa muy julli foog mu jàpp téere bu njëkk bu njëkk a jàng ñun ñëpp muy al axdari yu nga xam ne Abdourahman moo ko bind nekkoon taalibe si imaam Malik nga xam ne wa dëgg yàlla yéene moo nekkoon mu paase téere loolu waaye lu mu bind noonu rek jotal na ndax téere bi waaye nag dafa am ay nit ñi may dégg ñu naan soo jàngee laxdari rek doy na baax na tamit waaye nag soo si amee tamit soo ma mënee continuer moo gën de waxuñ na baaxul nag ku si am nag dana la jëriñ si benn côté waaye nag ndax lax laxdari bàyyi na lu bëree bëri ndax laxdari boo seetloo comme bidaaya bi waxoon na danaa indi koor kon indiwul koor ndax dañ ne Abdourahman da ko woy ba toll foofu ngante dab ko feebar dab ko si la génne àddina moo tax téere bi ñu amele ko foofu kon pour nga mën a continuer sa jàng foog nga dugg si yeneen téere yi si mel ni ñoom seen Ibnu Ashir Risaala ak Osmaan yooyu Muqaddima ak Xaliil ak Misbaax ak Damet ndax nga mën a gën a xuus mën a xam ñoom seen koor ak atay koor ak nikaax mooy sëy yaa ngi dégg bayon yooyu yëpp nga man koo xam ziraa yooyu yëpp nga mën a xam nuñ koy utiliser. léegi nag njàpp googu tey si moom lañ nar a jël alquran moo ko nasaloon yaa ayyuha alladina amanu ida qumtu ila salaati faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ruusikum wa aydiyakum ila alkaabayn wa in kuntum junuban fatahharu aaya boobu nag bëri na problème lool si borom xam-xam yàlla dëgg-dëgg soo demee si aaya bi dafa juñu rek ne bu fekkee ne yéen a ngi jug ngir jëm si julli faxsilu wujuhakum na ngeen raxas seen kanam wa aydiyakum ilal marafiq na ngeen raxas seen loxo ba si concu fii wa arjulukum ilal kaabayni tànk soo wamsa'u bi ru'usikum ngeen masa seen bopp léegi kon nag léegi pourquoi yàlla moom yii la tudd te léegi ñun ay faratay njàpp ñun ñu def ko juróom-ñaar te kenn mënu laa wax alxuraan ne la soo demee yi mooy juróom-ñaar léegi nag problème am na foofu danaa fa lancer benn défi sàcc wax tuuti mooy képp ku may seetaan na nga bàyyi xel am na ay agresseurs yoo xam ne bu ñu yaakaar ne yi rek xaw ma sax nu ñuy waxee baab bi wala euh, kii euh, booba nu ñu koy waxee agresseur wala wala nan agression xaw ma mooy bandi yi taxaw si tali bi rek. bu ñu yaakaar ne agresseur zahir bii nii dajeeg nit napp ko génnee ko paaka wala teg ko jam nga jël téléphone am wala lu mu am maa xam ngeen ne diine diine moo ëpp ay ay agression moo tax nañ bàyyi xel si ñu nga xam ne dañuy nekk si internet bi di wax lu leen neex ñu leen di topp. gis nga am na waaye joo xam ne si internet bi moom lu mu gëmloo Sénégalais yu bëri mooy nañ topp yax alquran mooy comme daal lii mooy nañ topp yàq bi lu nekkul fii buñ ko gëm. ko moom gëmul yonentu tamaman ndax moom nee na gëm gëmul hadis kon kay mooy gëmul yonentu te yonentu ñun yàlla si moom la ñuy moom la ñu ebal kooku nee na gëmul hadis ne nañ topp yaxu alquran léegi buuba buuba yow laay laaj yow mooy filmé léegi ñun bu ñu toppoon yax yaxu alquran rek kon kay bu ñuy jàpp nañ def la alquran wax rek alquran doon ne faxsulu wujuhakum raxas leen seen kanam wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ruusikum alquran de ñeent la tudd ñeent te ñu ñu ñu ñoo def ko juróom-ñaar buuba ku mën a ñëw si alquran ne la yàlla leeral na fa ne booy julli na nga julli ñeenti rakk tusubaat ñeenti rakk wala takkusaan ñeenti rakk kenn du la ko génnee si alquran waaye nag tudd na julli aqimu salaat wa atu zakat loolu yàlla tudd na ko n'est-ce pas léegi ne yàlla def na taxawal leen julli comme que taxawal leen da leen julli nag léegi nag pourquoi tusubaat ñu def ko ñeenti rakk takkusaan ñu def ko ñeenti rakk timis ñu def ko ñeenti rakk question la de. te loolu julli ñëwaat nañ see taxaw lu tax ma ñëwee foofu tay donte na xam naa ne faratay njàpp lay jàngale waaye dafa am point yoo xam ne soo koy bàyyi muy jàll ñu bari dañuy këf seen xel yi ñu nekk ay dof am na ñoo xam ne dañoo nekk ci internet bi dara nekku seen métier lu dul nar a fëkk ñu nga xam ne amuñ jot di jàng wala di déglu yenn borom xam ñoo xam ne dañ leen di tegtal ci yoonu ñub xam nga ne tey yow alquran boo ñëwee ne nañ topp yow alquran rek kere dégg naa fi benn waaye mooy waaye ji wax lii ba léegi tur bi laa jàppatut mais si mu ngi ci internet bi ku ko recherché da nga ko gis te alquran mbaa xam ngeen ne alquran bay na aaya yoo xam ne ñu ngi ko siy jàng kenn mënul koo dégg wala mënoo koo attee lu dut yénentu moo ko mën a leeral xam ngeen xadis lu muy jëriñ xadis dama ñëw ngir leeral yax alquran yaa ngi dégg kon xadis ak alquran loo mooy seen différence alquran waxuñ na leerul de mais am na maanaa yoo xam ne subha la maanaa yàlla day ñëwee lëntal yénentu rek moo ko mën a leeral booba naa la si indi benn misaal bu ndaw ñu daw dugg si njàpp ndax moo ñu tax a jóg soo demee si alquran am na fu yàlla di wax ne képp koo xam ne weeru koor dala fee fekk soo amee alal bu la neexee bul oor leelal nga ñàkk oor soo demee sóotu baqara da nga fekk aaya bi wa alal lazina yutiquuna fidyatun taamu masaakiina bu fekkee weeru koor fekk na leen fi bu leen neexee bu leen oor waaye dee leen leelal seen alal te doo am bàkkaar mos naa dégg benn borom xam ne di ko fiiri waaye nag kooku nag daa njuuj ñu bari xam nga njuuj mooy dafa teg tali bi ba gars yaakaar ne péage bi lay jël mu mu wàcc poste Thiaroye te waxu na gars yi poste Thiaroye laa war a jaare ñëpp naan mu ngi aw péage fekk nax na ñu bëri mais waroon naa leeral am na beneen aaya bu ñëw boo xam ne moo daq wax je te boobu pourtant loolu mu ngi si alxuraan la yàq bu ma la wax léegi boo demee bu ñu tijjee kayin bi léegi moomoon la ko ñu ngi koy jàng ba tey suba dañ koy jàng te am na beneen aaya bu ñëw maanaam folli atte bi waaye terewut bind yi ba léegi ñu koy jàng waaye àtte ba dañ na loolu dafa bëri ci alquran yooyu nag mënoo koo dégg lu dul yonent sallallahu alayhi wa sallam si moom nga mën a sukkandiku jàng hadis ne ha kon hadis bi mooy firi aaya bële alquran ak hadis loolu lay jëriñ ma indil la aaya bu mu indi léegi lan moo ko dàq nga daw tuuti buuba matut fukki aaya wala juróom yàlla waxaat ne faman shahida minkumu shahra falyasum képp koo xam ne weeru koor fekk na la fi da nga nag lu dul ngant yoo xam ne moo dal nit ki mooy ngant yoo yu ñu xam nit ki ku feebar bu mën wala koo xam ne fi jigéen daal na la wala koo xam ne da ngaa tukki wala nangam nangam ngant yi bu dajeewut si yow bu la fi weeru koor fekkee da nga force kon buuba aaya bi dàq na bële lu tax loolu duñ ko leeral te ñaar yëpp ñu ngi koy jàng si alquran de kon alquran de fois dana ñëw lëntal nit ki xelam donte nag lën tudde alquran lu leer naa ñu loolu na leer waye lu tax yàlla yéenu yéenantu mooy pour mu ñew leral tire yalla bi kon amna ño xamne dañ nan bu len top hadis nañ top yah alquran mota tax mee la bu alquran buba lu tax fukan fa tey kon kay julli julli kon kay luñu ñu julli ndax yalla waxut fenn de len julli juroom rakko juroom ben rakko la ñent rakko la nga nanga nak mo ñew leral leeralal ñu lolu te yenentu moy ko xamne lepp ne lu mu waxuy fa yalla rek deug la waaw ndax yàlla moo ko wax ne naa la nga ñeel mi ndefi wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin waaw am na feneen ay bu nga ko ma arsalnaaka yónni naa si mu ne kaafatan nag kon yonentu lu mu la ñuy def te gis nga booba danañ ko mos a nag si alquran ak hadis ma xool si lu lu yéeme waaye damaa bëgg a tënk rek ndax xam xam naa ne sama temps bi du yu bëri waaye bëri buuba yoo xam ne comme tey asaka dama si alquran buuba yàlla itay zaka wax rek waxul ñaata ngay joxe asaka nga demaat si beneen aaya yusikumullahu fi awlaadikum yàlla def na képp ku dee nga nga bàyyi fi njaboot sa njaboot dañ la donn moo xam xéeféer nga wala jullit léegi nag te tey alquran yenentu wax na ne xéeféer du doon jullit jullit du doon xéeféer doonte sax baayam la te loolu yàlla nas aaya bi leeralu ko du dëgg def na yusikumullahu fi awlaadikum li zakat misli hadzal unsayn ku dee na kii doon lu fi bàyyi li na ki nangam nangam yenentu na moo ñëw ne jullit du doon xéeféer xéeféer du doon jullit kon bëri na aaya yoo xam ne si alxuraan waxu yeneen trop moo ko mën a leeral lu dul loolu du ko leeral est-ce que yaa ngi dégg ñëwaat tamit ci wàll asaka ah itaay zakaat la wax kon nan la ñuy xamee ne temps la ñuy génnee asaka wala temps ci yeneen nga mën a dellu ma leeral la kon dof yi yu may déglu nañ bàyyi xel am na dof yi nekk ci internet di leen nax naan nañ topp yaxe alxuraan bu leen fi topp wax yonent fii ko fi topp yonent da koy topp te alxuraan nañu lan laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ñun si yenentu la ñu yónni nañ roy kooku lu mu wax ñu koy daf lu mu daf buñ ko def am na ko ma fi dégg tamit alquran di wax ne ah bu jigéen ñi amee ngant maanaam bu jigéen tollee si ay ngantam di gis raagil xaw ma na ngeen leen teet yaa ngi dégg bu jigéen ñi amee bu leen leen jege alquran wax na ko waa ji dégg naa moom keroog mu naan waaw yàlla waxut fenn ne euh, bu jigéen amee ngant bu leen sëyeeg moom kon bu jigéen amee ngant mën moom yow loolu bokkul sax si xele nite wala bokku sa ci service yow no séxé ko xamné yow kanam gu nga séxé mom ya xi mu ngi am mu ngi ngi am amna yo xamné mana mana sa mental sa dulo ko may nañ baye yef dof yu ñuy wax ha di torole nit ñi ñu ko xamné tamit jangu gis nga motax nit ñi nañ baye xel gis nga ku ci bëgg jup wala bañu sak sa xel wala bañu demal sa diiné topal bul top internet bi ko gis mu wax dara nga jël ko séta ñoo xamné ñi seen xam xam sel na te ñii tamit ñu ragal yàlla leen li ñuy wax am nañ fi ñu ko teg fu wóor nga mën leen ñu roy waaw maa ngi xaabaabal na waaye nañ dugg ci fa tey njàpp yàlla dafa wax ne bu ngeen jugee ngir njàppi na ngeen raxas lii ak lii ak lii te wax naa léegi ne la juróom-ñaari tudduñ ko foofu waaye nag nañ xam ne borom xam-xam lu muy jëriñ mooy yërëntu ba mu indee xadis moo ñëw leeral nañu ne njàpp lii ak lii ngeen di def ba mu ko defee borom xam-xam yu topp si moom muy saalihiina yeeg taabiina yeeg ñooñu ñoo gën a leeral ku si mel ni ñoom imaam Malik ak Shaafi ak Abu Hanbal ak Abu Hanifa ñooñu gën a leeral ndax ñun ñooñu la ñuy roy ndax man xala daa aliman laqiya allaha saaliman ku roy borom xam-xam boo doyee yàlla yàlla jéggal la yërëm la borom xam-xam nag bañ ñëwee ñooñu gën a dégg waxi yonentu moo tax ñooñu leeralal ba gën ñoo jegalal ku si mel ni imaam Malik mën naa wax ne senegal ñëpp moom la ñu roy yàgg na lool depuis 1900 ba léegi imaam Malik la ñu roy waaye soo demee nag si seen biir nag uutee ne da nga gis na Malik dana la wax ne la soo watee njàpp juróom-ñaar la nga ñëw si Shaafi'i mu la ñaa nga ñëw si nangam mu la lii nga ñëw si nangam waaye loolu yëpp nag ixtilaafil umma rahma lu yonent waxoon tamit nañ ci dellu rek ndax lu waa ji waxoon wa malikun wa ahmadun wa saabi wa shaafiu abu hanifatu imaamu taabi ala min rabbihi wa rahmatu waxtilaaful ummati ñoo ñëpp seen wuute du dara lu dul yërmande la ñeel jullit ñi mais na fa njàpp juróom-ñaar la ci lu borom xam-xam yoo gën a siiw wax bu si njëkk mooy ak niyatu mooy nga yéene faratay njàpp mooy loo xam ne ñu ko xamul comme mooy loo xam ne soo ko bàyyee boo jullee julli gi ndax ñett moo am farata sunna ak man duub farata mooy loo xam ne ku ko bàyyee rek sa julli wérut sunna moy loo xam ne soo ko bàyyee man nga woo dabaatal waaye du yàq julli yaa ngi dégg man dub mooy loo xam ne boo ko bàyyee moom kenn du la si topp dara farata mooy bu si njëkk mooy a niyatu mooy yéene yéene nag moom si xol la rek waaye si ban heure nga yéene mooy nit ki boo sël taxawee booy sëlmu pour raxas sa kanam joono boobu ngay yéene yaa ngi dégg ñaareel bi mooy xasulul wajhi mooy raxas sa xar kanam loolu farata na ko nit ñi bàyyi xel jàppkat yi jàpp nag nekku da ngay def ni rewaye nañ fexé soy japp da nga raxal kanam gi ba fii maanaam ba ci ci nopp yi raxal li yépp li li moy kanam li li moy kanam raxal li yépp wa ñettel bi moy ñaare moy xastul wadi ya yaa ngi dégg ñettel bi moy xastul yadayni moy raxal sa ñaay loxo ba ci fi conc bi mil fa bo may ñettel fa tay japp ñettel bi moy mas u masa ak raxal du ben nako ñu baye xel su ma ruus kon ko naa ci biir sàmm xanaa ma wala li ñuy masaayee waaye ak lu mën a xew rek nañ xam ne jàpp am na ñaari yoo xam ne dañ koy masaa waaye kenn du ko raxas bopp dañ koy masaa ak nopp masaa nag bokkut ak raxas masaa mooy da jël ndox mi wicc raay masaa moo fiiree kii nag mooy nii ñu ngi dégg xaa ma def ni jàngale rek masaa mooy nii na leer nii ngay def gis nga nu ma def sama loxo teg fii nii li mooy massa kon ale loolu mooy farata si faratay njàpp ale bi retour bi boo ko indee muy sunna na ko nit ñu bàyyi xel massa mooy nii lu ale farata la day ngeen retour mooy sunna bi yéen a ngi dégg wax naa ñaata ñett masaa bopp ale farata la si faratay njàpp ñeenteel bi mooy raxas tànk ba si doojoor moy nit ki day raxas tankam ba si doojoor bi donte nak am na ñu koy raxas ba ci sen euh, om bi waye nak am na ñuy dalilo si ben xadis waaye nag xadis bobu man duma ko wéd duma ko dakk ndax donte am na ko ko ñune dal manan lolu loolu kenn ko luñ ñu dal moy boko defé ko defee kenn du la wax dara boko defu tamit kenn du la wax dara kon ñukoy def tamit kenn waxul ne luñu def baaxul nak waye tànk daal nañ xam ne daal lu mën a xew daal nañ ko doxal ba si doojoor yaa dégg beneen bi mooy gaaw gaaw mooy fawru mooy farata la wax naa juróom-benn mu des benn gaaw na waxuñ la ngay jàpp parax parax déedéet mais na nga fexe jàpp am ful la ci looy jàpp ba ku la gis xam ne yow da jàpp waaye di jàpp soo raxasee loxo euh, sëlmu na nga na nga wax fii wax fii déedéet te nit ki buy jàpp. yonent sallallahu alayhi nee na jaam bi buy jàpp yàlla day ebal am malaaka ñu tegal ko saisi or maanaa comme nu yàlla nuñ fonkee julli bu war a jàpp war a jàkkaarloo borom bi bu waxee nekk fa di war a leel comme géwél di wax di wax rek dañ koy wàccee chaise bi tegal ko ban mu continuer di wax rek ñu dindil ko chaise bi su doddaloo birig lañ koy tegal te birig bi sax du dëgër su wax atee malaaka bi day ñëw rocc birig mu daanu mu ne ko boox ma la yaa bëri wax cam di jàpp di wax rek dem yoonam bàyyi ko fi kon moo tax nañ fexe nit kuy jàpp bëgguñ sax muy wax dañoo bëgg nit buy jàpp mu noppi concentré xam ne man am na si lu ma ne jàpp-jàpp gu sell bu pare de benn moo desoon fawru mooy gaaw mooy defal farata rek def nga lii defal li si topp boo paree wax looy wax nga defaale ko nii booy def loxo nga defaale ko nii am na nag yenn borom xam ne am na nag farata njàpp am na ñu ko def juróom-benn mooy lu ma la expliqué léegi ba si masa bopp sax bu ma la wax léegi mbaa xam ngeen ne borom xam-xam ba demee si ñoom Malick ak Abu Hanifa am na ñu si uti ak Malick am na ñoo xam ne dañ ne masa bopp xam yàlla def ne rasu rek rasu na muy firi yëpp am ñu ne masa bopp soo defee nii rek soo jëlee ndox mi ne nii rek masa nga sa bopp am ñu ne génn wàll bopp am na ñu ne bopp lépp waaye loolu yëpp na lu muy tegtale mooy ixtilaaful umma rahma rek yaa ngi dégg kon yooyu moo nekkoon faxa tey njàpp indi tey waaye yaakaar naa ne yooyu yooyu nañ bàyyi xel képp ku ko bàyyi ci jàpp man nga koo dabaatal waaye avant ngay julli comme tey exemple su ma sol su ma doon jàpp fàttee sëlmu loom fàttee raxas loxo bi ma dem ma dem bay bay waaye su bay waaye julli xelaat ko damay dem raxas ko rek kon loolu ne ko ni ñu bàyyi xel yaa ngi dégg bu nit ki bu jàppee paye nag dañoo bëgg mu def nii baaraamam ne ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu muhammadu am na ñaan buñ ci tegal nag yaa ngi dégg ñaan boobu ñu ngi may signaler ne waxtu bi jeex na waaye buñ ñëwaatee dinañ ko leeral yonent bi nee na képp koo xam ne jàpp na pare mu def ni baaraamam ne allahumma iftax iftax li abwaaba rahmati ñaan gi daa gudd mais après su ñëwaatee dinaa ko leeral nga def ni sa baaraam wax ñaan gi yàlla dana la tijjil juróom ñett a ajjana yoo xam ne bu la neex nga duggee ci te yaakaar naa ne ñun benn rek bu ñu ko amoon baax na kon ñu tijji la juróom benn juróom ñett huit kon loolu sant yàlla la kon ñu ngi si ñaan ne waxtu jeex na kon loolu leen ñëwoon tey si seen tomb mooy yor yor yi diina muy fa tey njàpp ak yu ñu si leeral ne ko di ñu bàyyi xel bu fekkoon ne dañoo topp yéex alquran rek billaay kenn mënu fee jul tisbaar ñeenti rakk la waaye nañu rajo yonantu moo ñu mën a leer leeral lool dof yi nekk si internet bi na di leen nax naan topp leen alquran lu al alquran ay naxaate la baax na rek te kooku di wax loolu mu ngi topp hadis de kooku di wax loolu man lu ma jàpp jotee mu def loo xam ne alquran waxu ko